Euh, liggéeyal sëriñ bi sëriñ bi dafa bari njariñ lool moom moo xam la ci nekk ci njariñ ndax am na foo xam ni daf ko lëm ni xafistuma siina anit defaatiri yàlla may na ma loo xam ni ëppanti naag ñu koy bind ci ay téere daa cee teg ni waaye nag fala takun an xidmati bi faatiri waaye nag bu may liggéeyal bu ci sonn bul son rek muy war na la ne daal mbir a ngi ci biir daal fii nag ñaan gii nga xam dafa leer mu ñaan ko rek te ku ne xam ne sëriñ bi digganteem ak boroom àggoon na foo xam ne da daan wax ne rus na koo ñaan lu mu ko mayul ba noppi kon ñaan gii mu ci ñaan ñi koy liggéeyal kuy liggéeyal Sëriñ waa war nga ko bàyyi xel di ko fàttali ngir nga gën a sawat li nga doon def dafa wax ne waqdi hawaïja alladina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu mooy yal na aajo yi ñi sax ci dima liggéeyal te may leen lépp lu ñuy sàkku ñaanal na leen ci leen war suqhumul imaana wal islaam na ngi may waaye sëñ bi li ko gën a ñor nag jamono bu ne damay wax ne li ko gën a ñor mooy nit ki am njariñu àdduna ak alaaxira moo tax eh, ñu bari ñuy ñaanlu dañuy wax nag ma ñaanal ay milliards ñaanal ma ay millions waaye sëñ bi lii mu ñaanal murid bi mooy li gën ci moom وارزقهم الايمان والاسلام والفتح والاحسان والاستسلام من نيماي ديغيل يال نغا لين ماي ليمان ماي لين الاسلام ماي لين اك فتحو ماي لين الاحسان ماي لين اك وماتو تي لي يالا بك وجاسهم عني بالغفران مو يال نغا مالين فايال اك جيغال جيغال لين ماي لين اي كرامه اي ترانغا ماي لين اي غرام يوبو لين تي اك نيوب jamono bu ne dañu bàyyi xel li mu nuy ñaanal moo gën ci noonu te lii la ñu ñaanal lii lay ñaanal ku ko liggéeyal ndax lii ci lépp nekk nañ leen xëcc yóbbu leen ci ak njub ak yëw te musal leen ci bépp alkande ak bépp lor may leen ñoom ñëpp xol bu baax lii muy ñaan nañ koy bàyyi xel bu baax xol bu baax képp ku may liggéey yal na ko may xol bu set wecc te dimbali leen ci mbiri diine ak adduna waaye ba muy wax adduna sax diine la jëkke dimbali leen ci mbiri diine doo caat ak adduna وكن معينهم على أمور الدين والدنيا مدى الدهور mel ni kon nitu sëriñ bi jamono bu ne nay jiital diine nay jiital mbirum yàlla nay jiital ak njub nay jiital liimaan nay jiital lislaam nay jiital lihsaan jiital ko ci bu ci teg adduna doo ko ci teg waaye na jiital lépp yàlla doo ci teg adduna wala tuaxirhum bi ma xat ajramu fi sirri wal jahri fa ant la akramu li ñuy tooñ nag li ma lay ñaan mooy bu leen ko jàppe mukk ndax yow de ku tedd nga ko xam ne ëppante nga ak di leen topp li ñuy tooñ waftah alayhim fil ulumi fatha na ngi leen may ak fathu ci xam-xam yëpp yusilu anhum dana san waxub ha maa ngi ci waxtaan ak euh, sëriñ Saliou benn bis ni ko sëriñ bi de li muy faral di wax ne suñu borom may na ma moom loo na ma alquran mallakanil quran ak mallakanil kitaab ma ne ko dafa mel ni suñu borom daf def kiimaan ba murid yi dégg gi ñu am ci alquran néew ko ci am noonu laa ko waxee moom sëñ Saliou mu ni mu ni ma waxuma la ab murit waaye képp ku jamonoonteeg moom leeru xel ki nga am ci darajaam la ak suñu borom defalee ndax li mu wax mooy man bii yu niiru kalkalal mu asiri ci sama daraja ci yàlla leeral la xolub képp ku jamonoonte ak man loolu biñ ko nattee analyse ko mboolem xam-xam yu yu technologie avancée yi ginnaaw bu sëñ feeñee jëm si biir feeñ ci feeñu bi la feeñ waaye kon bari na ko ci jariñu te xamoon ci moom moo lay jariñ man bii yu niiru kalkalal mu mooy ci man mii la suñu borom di leerale xolub képp ku jamono teg man kon léegi sëriñ bi loolu la ñaanal mbooleem kuy jàng xes léegi ku koy ku koy liggéeyal wahab lahum saadatan doomu yaa barru yaa mujjeebu yaa karim nanga leen may ak texe gu sax dàkk tey soppi seeni xol jëme ko ci ak topp yàlla ànd ak xam-xam ak jëfe ko ci daraja yonent bi sama ñaan gi rek doy na ci fonk liggéeyal Sëñ Tuubaa